napp gi tamit desul ci ginnaaw benn yoon ci jafe-jafe yi nga xamante ni coronavirus bi indil na ko secteur d'activité yu bari fii ci réew mi ba ñu tegee état d'urgence ak couvre-feu ba léegi ñoom nappkat yi ay jafe-jafe rek lañuy ñuy dund koppar yi daan am sax daal di wàññeeku bu baax ñoom ñooñee lañ demoon na seeti foofee ca Soumbédioune. maanaam feebar bu mu amee ba léegi moom daanaka wàññi nañu suñu liggéey lu bëree bëri bëri si koom-koom. waaw liggéey bi moom doxatul euh, heure bi ngay dem géej tamit arrangé wuñu ndax ñun dañuy teel a dem géej mais boo toogee sa kër yi boo dëkkee am na ñoo xam ne fii dëkkuñu fi dañuy jóge ba banlieue ba bu ñu jógee foofu xëy pour liggéey si mais heure bi ñuy jóg 6 heures balaa ñooy egg si presque 8 heures wala 9 heures nga bëgg see dem géej balaa 20 heures fekk nga duggaat sa kër day metti 50 pour cent dematuñu géej am na 2 mois dematuñu géej nga sunu gaal yi mag am na deux mois demuñ géej te gaagu ne danaan yëpp dix personnes wala treize personnes ku nekk sa njaboot moom nga yaakaar ñu téye leen mën dem géej parce que soo ñëwee jën bi ngay jaay ak frais bi nga yóbbu soo doo si génn da ngaa mujj arrêté gaal gi toog. si jën yi ñu doon jàpp ñun suñu mosaane ñëw exemple li ñuy jàpp léegi doo doonatuñu am dara te autant buñ mosaane dem géej avant corona bi même cinq jën sax si ñuy napp ni instant bi duñ ñëwee dañuy am dara. parce que mu ñu génne suñu frais yëpp génn essence carburant yi ñu war a def yëpp ñu ko génnee après dañu am loo xam ne au moins dinañ mën a jën bi jaratul encore clients yi dañuy ñëw léegi ku ñëw à partir de deux heures doo jaay da ngay glacé ba xëy ba pare prix bi doon jar cinq mille léegi mi ngi si deux mille ak mille cinq cent li doon jar trois mille mi ngi si mille cinq cent. jën maa ngi nii jaratul. parce que jël bi nga xamante dafa am jën bi ñu ne Africa Europa Europa bi léegi dematul fenn quoi actuellement dafa daanu daanu boo xamante ne li fi nga doon amee ay dix mille francs cinq mille francs léegi ay deux mille ay mille cinq cent ngay am quoi. Njaay moo dul dox que jën jën da nga naan séddale su jën masaan ñëw yi day dem Europe yi ñëw Sénégal ñenn ñëw jënd fii mais benn boor bu arrêté li nekk fii day taxaw. te jën bu ñëwee. balaa nga koy jaay day yàgg doo gis client client yi daan jënd yëpp parce que gannaaw gi yëpp ñëwatuñu xam looloo tax daal moo tax liggéey bi fan yi moom deexul neexul si ñun daal neexul. ñun dañ doon dem côté de matin léegi soo génnee 5 heures dañ lay jàpp léegi 6 heures nga am droit ñu bëggoon dem fu sore pour napp dootuñu mën a dem dañuy wàññi distance bi liggéey bi daal sooxe na trop ba pare gisuñu kuñ jàppale xam nga yóot nañu fii trop si coono yi. location yi métti na yëpp métti na suñu côté daal lépp laal lañu. doxul dafa taxaw de c'est dafa nekk loo xamante ne soo xëyee foo nga dem defi activité boobu parce que boo ko defulee du baax moo fi nekk rek mais sinon métti na de.